ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen ñaan ngeen topp ñu ci biir ah, xam lu fay xew. dong la. Elzo nuyu nañ la. waaw fay naa la ma sista nu mu demee. waaw ah, cool. maa ngi si ah, koor gi. waaw ñu ngi ci kawam de. bale ñu àkk. waaw baal nañ leen baal ñu yàlla ñu yàlla boole jégal. ñu fekk ko ay année année. amiin dañu la gis que euh, Sonaltes mu ngi door fii nii benn ndogu. def ko en société ñëpp ñëw yow dañu bëgg xam sa taxawaay fii. waaw parce que bon Sonaltech sama bro la nekk euh, doomu Fass pour man Fass Médina ak Rebeuss Dakar Plateau ñu ñëpp même koñ bi la on se fréquente depuis pas mal de temps euh, mu def lu nice parce que Sénégal dafa nekk dëkku partage koñ bu nekk gis nañ depuis quelques années jeunes yi dañuy organiser joxe ndogu pour ñi nga xamante ne ñi ngi ci kaw tali bi te prévoir ñu woon lu ñu ndogoo donc loolu ñëpp xam nañu ne tiyaaba kese la. ba pare en plus de ça am na ñu bëri xam nañ ne dañuy woor ba heure ndogu jot peut-être que ndogu bi du demee noonu seen côté quoi tu vois donc mu def initiative bu nice day def loolu. koñam te man képp kuy jàppale sa sa gox képp kuy def action sociale su ma ci mënee jàpp dama ciy jàpp donc mu woo ma ma ne ko maa ngi ci biir quoi sa naturel. ay ay ngëneel yu bëri la sax mais ñun ñu ngi lay gis ñu ngi lay suivre bu baax gis nañ yaa ngi ci net bi yaa ngi jàppale yeneen gars yi si ndëg même sudul fii sax. man je te vois je maa ngi lay gis UG ngay dóor ay affaires yu nice yow ak boobu noonu. Euh, euh, Sophie Gueye waaw genre au collaborer wala. waaw euh, ci téléphone yi. Ah moom mooy waaw moom mooy ambassadrice su Samsung tout ce qui est électroménager donc waaw on s'est man moom ak waa Samsung yëpp pourquoi pas koor gi nii ñu defandoo ay affaire waaw maa ngi koy nuyu bu baax Sophie sister boo xamante ne franchement modèle exemple la. voilà elle investit trop dans le social. exactement euh, ci ëpp expérience donc côté yooyu dañ ko ko bàyyil na ko yow yaay guidé ñu ngi ci ginnaawam donc ñu ngi koy bëggee bu baax di ko jaajëfal di ko yokk doole. depuis IP bi ba tey. waaw dëgg la maa ngi ci waañ bi di togg lu doy waar loo xam ne su génnee rek ñu xam ne maa ngi woon ci waañ bi ñor na xomb. mais cette année ci gisuñu la comme que daaw euh, defoon nga tout plat show bi xam naa Covid bi moo la téye wala. bi moo taxoon bi passé dëgg la amul mais année bii di ñëw de incha allah bu fekkee ne ama ba léegi autorisation yi ñu ngi am waaw maa leen di jox rendez-vous décembre comme ni mu doon amee lay amaatee incha allah. Setsima TV. l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu wér te